kii moom yàlla bu mu génn ci kaso bi samay waxa man jaay Touba. gaa yi dafa yàqate ma euh, garda bi yàlla na ci mandat dépôt yàqate ma euh, garda bi yàlla na ci mandat dépôt yàlla na ci mandat dépôt barke Seydina Muhammad dafa jaxate waaye justice Sénégal nag moom léegi na ma yàlla baal baalati ma daal doy na waar garde à vue lëndee ñu bàyyi la nga dem dafa jaxate mii daa war a def paquetage ca booy ya ñu futti koom set booy di ko saaga guddi di ko saaga bëccëg di ko tànc di ko paquete muy lekk ci jagaa bi mag mu yaradi ko da koy jëf yaradi bu génnee xam na réew mi dafa am ñu ko yilif mu reewandeem gi mu nekk ci réew mi mu dakkal ko comme nag nee na ñun dañoo alku den ko wan sunu alkaande kenn a gis mu dem kaso ma ko ko muy dafa jaxate mii yal na fa sax yal na fa yag waaw liko ko ci ay fanal ak atam yal nako suñ borom fet yal nako ko ci kasso bi moom tafa Diakhaté ki ben ndërmaane doxul sama digata ak mom billahi da nekk ba ci ko tafa Diakhaté waaw ki yal na dee ba wow kong ci kasso bi waaw kii moom yàlla bu mu jenn ci kasso bi samay waxa man jaay Tuubaa may mo dégg am Ndour Faye sax lay wax dégg am Ndour Faye sax lay wax may mo Ndour fay neena xala TV dañ ko tej tej kay tëj kay bu dee am yaag sa télé boobu la ñu war a boole tëj yaag sa télé boobu la war a boole tëj sosal ngeen fi gor su ne taqal ngeen fi gor su ne sax ci ci réewu bay dégg naa télé bi moomatoo télé bi dégg naa moomatoo yow bu tëj yaam yo la war a tëj ba ngay cokkaas xalaat TV nag da ngaa yaakaaroon ne wala waaye xam nga ne xalaat TV xajut ci kudul yow xajut ci kudul yow gis naa yaa ngi Yërim Seck ngeen toog dem mbamb xalaat TV la leen tegal ngeen attanut waaw ku juba ku bëri pexe juba ko gën may mën a nduur fay xalaat TV da leen weer weer dong la leen def ngeen naan na tëj tëj xalaat TV caaxaan tëj